loolu foog naa ne kenn weddu xëy na bu ngeen demee ba toog ci bopp nguur gi di ngeen ko saytu moom ah foog naa ko dinañ ko saytu ko dinañ ko saytu mbokk yi may fàttali ba léegi yéen a ngi seen émission jokko ñuy dalal tey monsieur Bruno Derneville nekk euh, jiite parti bii di parti pour l'action citoyenne ah bokk ci coalition tam jot na alors ñuy dugg nag ci beneen point muy wàllu politique maa ngi koy wax ci début bi def ngeen euh, benn benn benn ndaje yéen ak waa CRD ndaje moo xam ne tam euh, nit ñi doon nañ jort na sa xëy na ci coalition ngeen jëm waaye tam li ñu seetlu si beneen wàll wi tam gis nañ beneen daje muy daje Ousmane Sonko Khalifa Sall ak itam bu Karim Wade PDS euh, mu mel ne tey opposition bi nit ñi dañu doon xaar ñu dajaloo mais lu ñu seetlu tey ñoom ñoo disloqué kow ñii dañu jëm fee ñii jëm fee déjà ñi ngi commencé sànnante xeer déjà ñaari bolog yooyu nga xam ne moo ci dugg ban gis-gis euh, yow nga si am en tant que chef de parti. Euh, waaw man dama bëgg rectifier tuuti Euh, dëgg la ñaari bloc yu mag ñoo taxawagum. di waxtaan mooy bloc bi nga njëkk wax ak suñu bloc CRD jot na. waaye sànnante xeer boobu xaj na périphérie bi maanaam ñi nga xam ne ñoo ñoo wër ñoo nekk di sànni xeer waaye ñun de foog naa ni kenn gisul euh, waa jot na di sànni xeer gis nañu nag ay critiques ci euh, abdul mbay yoo xam ne def na quelques critiques mais ay critiques positives la nekkul critiques yoo xam ne dafay fermer bunt bi dafay wax rek ne. waaw dox leen li ngeen di dox waaye jàpp leen ne bu leen fermer bunt bi parce que tey euh, enjeu bi maanaam fi ñu war a euh, ak li nga xam ne mooy moo moo moo nekk suñu suñu objectif ñun ñëpp war na doon ñun ñëpp ñu booloo parce que bu ñu ko deful rek liñ ciy ut euh, bootul dinañ dinañ ko ñàkk nekkul nag dañ dañ leen di ŋàññi parce que nag waxtaan ay étape lay doon xam nga boo buggee boole ñëpp ci benn waxtaan boo xam ne day door Euh, xaj na euh, wax ji day wuute lool ba nga xam ne dina am ak jafe-jafe pour ñu tënk waaye bu ngeen tàmbalee waxtaan par groupe yu ndaw euh, du ñàkk waxtaan boobu après dem boolu ak waxtaanu ñeneen mu gën a yomb waxtaan bi gën a yomb ndax tey CRD jot na am tënk nañu ay kayit tënk nañu loo xam ne mooy li li tax ñu mun a ànd ñale itam ñu ngi tënk da bu yàggee ñoom it dañu mun a ñëw boole. seen li ñu tënk ak ñun ba xam ndax dinañ mën a ànd te am nañ yaakaar ne loolu dina am. parce que parce que parce que relation bi. ba léegi ñu ñu ngi koy am. mais bu ñu waxee ak Khalifa ak euh, Sonko ànd nañ mais loolu ñooñu la ñuy wax ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a fës ci opposition bi loolu dafa est-ce que ànduñu euh, am na ñoo xam ne dañu jàpp ne xëy ne dañu ànd peut-être dafay néewal doole beneen parti bi nga xam ne peut-être ay CRD ak jot na ñoo fa nekk aussi. non je que ñoom euh, xalaatuñu sax demal seen bopp bàyyi beddi ñeneen xalaatuñu ko li tax ma ne xalaatuñu ko ñoom xam nañu ne parti yi nekk ci yeneen i euh, coalition bi nga xam ne mooy CRD jot na nekk na ay parti yoo xam ne bari nañu ay base ay ay ay point ay bastion ay zone yoo xam ne dëgër nañ fa ci ci ci biir àll bi et même ci Dakar kon euh, boo jàppee itam ne code électoral bi tey niñ ko tënkee xam ngeen ne code électoral bi soppi nañ ko mm. niñ ko tënkee tey dañu jàpp ne mais dafa nekk koo xam ne mooy nekk tête de liste majoritaire bi loolu wute na lool ak li fi néew kon tey pour fal ñaari condition il faut que mu am benn bi mooy euh, ki nga xam ne mooy jiite liste bi war na doon koo xam ne ku charismatique koo xam ne euh, nit ñi may nañu ko may nañu ko euh, bopp xalaat nañu ne kii am mun nañu am yaakaar ci moom muy benn ñaareel bi war na am benn appareil boo xam ne mun na tax nit ñi am confiance ne ah kii de ñi ko wër itam ni ko dar euh, doy nañu ba tax war nañu leen mun may confiance rawatina ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition parce que opposition bi bu xaajaloo rek donte mun ngeen am ay kàngam nit ñi dañuy dañuy dañuy séparé wul maanaam dañuy kii day vote fii kii vote fii xam nañu ne euh, euh, scrutin majoritaire la maanaam ku ci am benn benn xob ku ëpp sa morom rek yaay yóbbu ndam li. kon loolu boo ko seetloo. war nga xam ne mais loolu déjà nekkul nekkul pièce yéen parce que euh, bu ñu xoolee yéen seen parti yi comme parti yu bëri la te itam bu ñu xoolee na tam ay gis nañ fa ay ay ay nit ñoo xam ne ñu am jëmm lañ ah. euh, loolu euh, ñi nga xam ne ñoo bokk benn dëkk bu ñu nekk ak ni ñu ko ni ñu ko waxee est-ce que loolu na nekk yéen nañ ko doon xas naan nguur gi mënta mënta nekk mais ñoom au moins am nañ kenn koo xam ne moo jiite mën na tànn ne di way jiite mais yéen amu loolu <laughs> waaw waaw moom nag mun na tànn ki nga xam ne mooy jiite. ci ci listam mm. waaye tey bari na ay gox yoo xam ne ñii bëgg a jiite bari nañu te ñu ci bari tey nee nañu bu ñu leen tabul dañuy dem dañuy demal seen bopp. loolu mën nañ ko mën nañ ko aussi dafa njort si yéen. waaw mais ñun euh, euh, différence bi am ak ñun. di tey te loolu maa ngi koy profité di ci di ko wax sama sama sama naataango yi nga xam ne opposition bi ñun tey waa jot na. Euh, indi nañu benn notion boo xam ne dañu ko fàtte woon wala dañ ko soofantaloon mooy àndu nawle àndu nawle ñun moo tax ba ñun ñun ñëpp ñu mun a ànd ku ci ne gis ci boppam te tey CRD bokk na ci àndu nawle boobu te ñun àndu nawle boobu la ñuy proposé ñëpp ñi nga xam ne ñooy opposition rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe groupe euh, euh, taxaw Sénégal taxaw Ndakaaru et et PDS. et puis ànd na mooy mooy dañuy may gëdd bépp kilifa bi nga xam ne moo bokk ci coalition bi c'est-à-dire que ñun ñëpp on est d'égale dignité. mais loolu moom ku ci ne mais je suis désolé mais loolu moom ci politique politique aussi dañuy nangu ne. parti bi day ëpp doole parti bi parti bi ëpp doole parti sa parti ëpp doole yaay féete kaw loolu bu ngeen ko bëggee wax ni day mel ne yéen yéen seen biir sax da ngeen naxante non non naxantewuñu naxantewuñu parce que euh, euh, élection locale yi déjà élection yoo xam ne day laaj ay nit ñu charismatique ñoo xam ne ñooy jiite liste yi muy benn foog naa ne euh, ñii nga xam ne ñooy chef de parti wala chef de mouvement naturellement ñooy leader yi souvent hmm. ah bu dee nag am na ñoo xam ne nekkuñu li am nañu doole kooku tam mun na am bu boobaa dañuy waxtaan ku bokk na ci li nga xam ne tënk nañ ko ci coalition te ñëpp nangu nangu nangu nañ ko kon wax dëgg eh, lii ñu teg règle de fonctionnement ci biir coalition bi bari na ñoo xam ne ñu ngi woon sax ci temps wu CPC tey ñu ngi naan euh, règle yi nga xam ne moom la ñu teg ci jot na foog naa ne musuñ koo gis ci euh, euh, coalition yi jiitu loolu nag tey moom la ñu jël teg ko ci table bi proposer ko opposition bi parce que fii ñu toll ci urgence moo moo maanaam tey dañu toll foo xam ne Sénégal dafa laaj mbooloo opposition bi yépp ñu def say ndax gis nañu tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ni ñuy dundee métit yi ñuy dund euh, métitu ndox ñàkku ndox métitu euh, terrain yi nga xam ne tey euh, rawatina ci période bi nga xam ne dañu leen dañu yokkal mandat wu kii e-, kii élus yi gis nañ ne yokkal nañ leen ñaari at ak lu tegu ci diiru ñaari at yooyu gis nañu fi caxat caqati suuf yu bëri yoo xam ne euh, gis nañ ko ci zone Saly bi gis nañ ko ci euh, suñu zone Foundiougne bi sax gis nañ ko ci yeneen ak yeneen zone yoo xam ne hmm. tey hmm. Euh, population yi ñu ngi ŋaññi maire yi ci li nga xam ne noonu la ñu yore d'accord loolu loolu dina si mais mais man li ma gis ngeen ko doon ŋaññi coalition présidentielle ne waaw ñoom mbooloo mu dajaloo lañ di pàccoo réew mi dafa mel loolu laa gis seen coalition yi c'est-à-dire j'ai l'impression tey da ngeen a dajaloo yéen tamit pour séddoo gox-goxaan yi. Euh, ñee bu dee xëy na ay ministre la ñuy séddoo ak ay kii mais yéen da a bëgg a dajaloo ñi am doole jël maire yi ñuy jël conseil départementaux yi. waaw xam nga xam nga boo nekkee ci langue politique. Euh, yow combat politique moo la intéressé maanaam euh, la recherche du pouvoir léegi nag recherche du pouvoir boobu. Hmm. maanaam yor ay lenge yor ay ndombal tànk. yor ay lenge ak ndombal tànk nekkul une fin en soi maanaam nekkul warul nekk loo xam ne da nga wut rek ngir. sa dayo wala ngir sa pukkare déedéet dafa war a doon loo xam ne da nga koy def ngir euh, looy ut a def pour bàyyi woy wu rafet ah man de noonu laa ko gise te foog na ne am na fi ay homme politique yoo xam ne ñu ngi fi woon xame nañ leen noonu waaye bañ tey mu ngi am ay homme yu mel noonu tey ku fi tudd Mamadou Dia xam nañu ne ci genre boobu la meloon waaw ba benn tey mu ngi am ñu mel noonu du ma tudd tur nag waaye bari nañ fi ñun nag jàpp nañ ne suñ coalition bi bari na ci ñoo xam ne noonu la ñu mel bu dee bu dul ñëpp itam xam naa ne euh, sorewul ñëpp ànd ci xalaat bu mel noonu li wóor ba wóor mooy saafara mettitu euh, euh, askan wi moo ñu tax a jóg te mu jaral mu jaral ñu nag lu bari parce que li gënoon yomb pour ñun. mooy ñu dem ñu dem ñu bi rek. mais mais leen a ànd naka ngeen mën a gëmloo Sénégal yi même bu ngeen demoon bay gouverner aussi intérêt moo leen di intérêt moo leen di jiital déjà yéen politique. non ba ànd. parce que parce que li ñu gis li ñu moom ce qui est mooy c'est à la à la la la bout de la bout de li ñu gis nii muy dem bis bu sottee da ngeen di beru ne ñoom Khalifa ak ñoom Karim Sonko